di teg loxo bi nuyoo bi ci loxoom mu ziareel ñu mboolem seen jamono mboolem seen njabootu Cheikhul Khadim kenn ku ne ñu delloo ko delloo ko wàccuwaayam di nuyu mboolem seen njabootu Cheikh Ibra ak mboolem seen bu soobee di door sama wax nag ci njaal gi donte lu ñuy defi ca kër ga muy suñu rakk suñu soppe suñu doom sax laa war wax suñu wëllëre nga xam ne lu ne daj na ko ci xeex bii ànd ceeg Cheikh Thioro Mbacké ànd ceeg mbooleem seen coordination Mbacké waaye ànd seeg mbooleem euh, mboolem seen Pastef Touba muy moom Modou Tall mi nga xam ni yàlla mi boroom ruux moom mi nga xam ne moo ne moom moom bakkan te saa su ko soobee mu jël ko ida jaa ajaluha la yastaxiruna saatan wala yastaqdimuun kon moom moom nga xam ne kenn du xëccoog moom lu mu def rek noonu la waaye ñu koy jaale mbokk yi di ko joole jaale waa Pastef di ko jaale Sénégal ndax soldat la woon ci toolu senegal <coughs> bu loolu weesoo ma jottali leen ngërëm ak cant son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi ñu waxee tey ci bëccëg fekk mu nekk ci yoonu tukki di dem arabi Saoudite war fa fekke ndaje bu am solo boo xam ne dañ fa war a taxawee taxawu suñu mbokk yooyu nga xam ne ñu ngi leen di faagagal ci Palestine daf ma ne boo demee Mbàkke nang ma gërëmal waa département bi te wax leen ni fàttewuma suñu ndogu bi ñu fa ndogu keroog ci campagne électorale bi waaye nag ma leen santalit ci résultat bi génn ci urni ndax lu yéeme la woon mbokk yi dañu wax waykat bi dafa wéy wax mu jaddid mu jaddid nag mën na am maana ci kàllaama arab mën na am maana ci dégg-dégg diine parce que ñaar bokkuñu kàllaama arab kallaama la ni kàllaama yëpp rek ni wolof ni mankaañ ni séeréer donte nag mooy kallaama bi nga xam ne ci la ñu wàccee diine islam loolu wàllu culture la waaye comme mooy langue bi ñuy wàccee diine it mu bëri ay expression ak ay termes moo xam ne ci biir diine moo xam ci alquran wala ci hadis wala ñu jàngal ci fiq dafay am maana moo tax jàpp naa ni bu Abdou giite waxee ndax mujaddid la waxu ko ci li jëm ci diine ci wàllu lépp luy yeesalaat diine gi lépp lu koy renouveler muy ci wàllu ibaadaat wala muamalaat wala fiq wala alquran wala yeneen ak leneen waxu ko ci foofu waxu ko ci foofu ndax damay bañ yàqkat yi di wër rek di essayer yàq waaye buñ ko delloowee ci langue arabe kese mujaddid mooy ñu fekkoon ci société loo xam ne li fa baaxoon wala li fa waroon baax suul nañ ko ñoom ñu andi beneen façon bu bokkul ak boobu kon mbir mi dañuy maas nuun gi d'abord damay wax ni waa Pastef yëpp ay mujaddi duun ngeen yéen ñëpp nag waaye ay mujaddi duun ngeen ci lan mooy ci géew gi nga xam ne mooy géew politique géew politique ndax li ñuy def nii est-ce que amoon na ci politique Sénégal daan nañu dajale nit ñi ñépp ne tej toog ñu waxtaane réew mi ci koom-koom ci paj mi ci leneen ak leneen déedéet dañ daan dajale nit ñi jox leen ay t-shirt ñu ñëw tëgg ku nekk yor sa pancarte ne maa ngi supporter diw bu ñu paree ku ne ñu jox la deux mille cinq cent wala cinq mille nga dem sa yoon kon yéen waa Pastef ñun waa Pastef bu leen am benn complex ni da ngeen révolutionner la politique au Sénégal kon ci sens boobu buñ ko woyee wax ko ne leen d'accord nañu ci loolu nag laa bëgg ñu waxtaan tuuti ci li nga xam ne moo ñu andi fii ndax nag la révolution est en marche te kenn mënu ko téye lappi-lappi nag mun na ndax gars yi ñoom politique dañ ko jàppe woon seen teranga bopp moo tax jàpp nañ li Pastef andi dafa foqati seen teranga révolution boobu nag nga xam ne mooy politique ñu delloo ko sa noblesse politique nekkaat jaamu yàlla politique nekkaat njëriñ askan wi loolu gisuma lu ko mun a yàq ak lu ko mun a arrêté te loolu gannaaw yàlla c'est grace à vous yéen les militants et les militantes de Pastef mais c'est grace à des milliers et des millions de sénégalais yoo xam ne jënduñu carte de membre Pastef waaye ay sympathisants lañu te gëm nañu li Pastef di def ak li muy wax tey lañu ñu war a gën a farlu nag tey la ñu war gën a takk ndigg yi balaa may dugg ci waxu pôle bi ci boppam dinaa wax tuuti ci leeral yenn mbir. yoo xam ne pour man lu am solo la ci li ñuy liggéey bu ci njëkk mooy jub jubal ak jubbanti mbokk yi loolu il faut ñu koy fàttali saa su ne ñu koy fàttaliku parce que bu dee dañoo xeex ba egsi fii ay bakkan rot ci ay nit dem ci kaso ay nit ñàkk ci ay cër ay kër yàqu ci liggéey yàqu ba yàlla andi ñu fii lenn rek la ñu mën a def ne sacrifice yooyu yëpp jaroon na ko mooy saa suñu xëyee rek ak ngoon balaa ñuy tëdd nañu xayma suñu bopp xool ndax bés bi ñu dund tey bu dee dañ ñoo dénkoon lenn ci responsabilité est-ce que def nañ ko ci jub ak ci jubal ak ci jubbanti noonu rek lañu ñu mënee rendre hommage ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ba tax nag parce bi maa maa ngi ci log lu bari na seen xel dal su ma waxee nag waxu jub jubal jubbanti mooy li xew ci réew mi depuis 1960 waaye rawatina nag at yi ñu wees yéen ñëpp xam ngeen li fi xew day na waar ñu jël alalu réew mi ay nit jël ko waxuñu ay million waxuñu ay dizaine de milliards waaye ay centaine de milliards la nit ñi rawale démb rek dégg ngeen kenn koo xam ne mbokk la ci ki fi newoon jiitim réew dégg ngeen wax yi mu wax démb te loolu xanaa da koy révéler rek waaye lu ñëpp njort la wala lu ñu xam la ma bëggoon nag dafa am lu ñuy doxal ci réew mi ànd ak seeni journaliste ànd ak seeni waxkat ak seeni bindkat te lépp objectif bi mooy ñu fexe ba banaliser banaliser mooy nga neenal ñu gëm loolu nit ñi ni suñu la nee diw jël na un million garaawul suñu la nee diw jël na un milliard garaawul suñu la nee nit jël na cent milliards garaawul moo tax scandale yi dañ ko daan bégg chaque jour nit ñi waxtaan ci ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ñu jàllale ko noonu waa ji dem jël xaalisam génne ko réew mi yóbbu ko ci ay banque offshore denc ko fa mais est-ce que xam ngeen un milliard lan la mën a faj ci réew ñaata école yoo xam ne tey abri provisoire la un milliard munoon na ko régler ñaata dëkk yoo xam ne tey am nañu problème ndox un milliard munoon na ko régler ñaata jeune lañu ñu mënoon utal ay liggéey ci un milliard waxuma laa rek bu ñuy wax ay millier de milliards moo tax loolu bu leen kenn parce que dañ ko tàmm dégg dégg dégg ba nit ñi léegi dañ ko neenal ku dégg détournement sax da naan ah ñoom la rek moo tax faw rek ñun bu ñu échoué loolu ñun ñun bu ñu doxee ba échoué loolu rek dafa mel ni échoué nañ lépp mooy fexe ba réew mi ñoom Cheikh Tidiane Dièye ñii ñoom Alioune Sall ñoom ba Jemme ba ci man mi Ousmane Sonko ba ci président Diomaye fay kenn ku ne xam ni liñ li ñu la jox dañ la ko dénk nga war képp nag ci dañ la fay waaye loo ci jël lu dul loolu rek yoon war naa mën a dal sa kaw loolu defuñu ko parce que dañoo bañ ma sàmba wala ma demba waaye réew mi la gën a baax niñ ko yoree ci fànn woowu moo la gën a développé moo tax solos am majorité écrasante assemblée nationale bokk na ci li ngeen dégg ñu ne haute cour de justice loolu dàqantewul nag ak dossiers yi nga xam ne commencé ngeen ko dégg justice di ko def waaye képp koo xam ne tey jëloon nga alal réew mi ci dudul yoon ak koo mun munti ne faw rek alal googu nga delloosi ko faw rek nga delloosi ko parce que alal googu moo waroon defar tali moo doon defar poste de santé yi moo waroon defar hôpitaux yi moo waroon defar école yi moo waroon jox ndaw ñi liggéey benn nit ñëw toog ci jàpp ñaamburam foog ni loolu mën naa wéy loolu ñu boole kook nag yorin gu sell réew da nga koy yor ci yorin bu sell mooy alalu réew mi ñu bañ koo pasar pasare ndax état senegal lañ ci yàq ci alal bari na bi ngeen ma déggee taayele ma woote primature daal di génne benn circulaire li may wax nii dafa am solo de gis nga yu ndaw yooyu ñuy xeeb moo ñu wutale ak réew yu développé nga ñëw ci état ñu ne la benn nit mun na yor cinquante oto bii otoom la bii mu jox ko jabar ji bii mbindaan bi suy dem marché benn nit benn nit wala soo duggee ci bureau yi bureau bu nekk am na télé am na machine a café am na li léeg léeg lii loolu yëpp ay milliards yi milliards yu ñu yàq la ci année gis nga soo jëlee réew bu mel ni Norvège réew mu la gën a mën a saytu loolu moo la ëpp développement Norvège am nañu pétrole am nañu gaz ñoom ñoo am fonds souverain bi gën a am doole gannaaw Qatar su ma juumul mooy fonds souverain mooy nga dem ba om omle daa di génne alal gu bëri denc ne lii damay xool fu ma war a dugal rek ay investissement yoo xam ne day jëriñ ëllëg ñoom ñoo ko am Norvège mais est-ce que xam ngeen ni Norvège boo demee ci ministère yi ministre yi amuñu seen oto bopp dañuy am benn park boo xam ne ministre bu buggee génn ñëw jël dem euh, euh, agent bu buggee ñëw jël dem mais suñu wàccee ngoon ku yor véloom moom xam na li may wax ku yor véloom dawal vélo ñibbi ku am train dem jël train ku mën a jël taxi jël taxi. ma wax leen ci benn histoire bu ndaw rek am na benn française bu tudd Eva waaye moom Norvège la juddoo am fa nationalité. mu toog toog toog 2016 mu dellu norvege ñu jël ko fa conseillère ci lépp loo xam ne mooy xeex nger mais saa yu wàccaan aéroport rek jël taxi mu yóbbu ko fi mu jëm dafa jékki-jékki rek gars yi bind ko ne ko da nga war a rembourser parce que fii sooy dem en tant que agent de l'État da ngay seet moyen de transport bu gën a néew lay fay taxi nag moo gën a cher pour pourquoi ngay jël taxi bi ñooñu foofu lañ toll te ñooñu ëpp doole fuuf réew mu développé la sakkanal dafa baax diine ci boppam daf ñu ko sant ak diine boo mën a jël diine ci boppam daf ñu même boo yoree walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna zalika qawama loolu la diine wax mooy boo demee ba yàlla jox la ba nga xam ne jox na la sax booy dépenser bul nay trop waaye bul xaababal trop na nga nekk ci digg bi te loolu mooy permettre nga suuraale ëllëg ndax dañoo nekk jamono difficulté mun nga xëy ñu ne Covid am na ci àdduna bi bu dee dencoo woon dara foo jëm mun nga xëy ñu ne guerre am na ci àdduna bi fa nga doon jëlee pétrole wala blé mënatu koo am boo denculoon dara nooy def donc yii dafa am solo. ñetteel bi ma bëgg a wax mooy dégg naa am na ñoo xam ne nee nañu dañuy vaar Pastef dañuy vaar Pastef Pastef lu mu wax rek dina ko def incha allah am na ñaar ñu ciy gën a wax ñoom nee nañu Pastef moo ne woon day def appel à candidature mooy post yi balaa ñu koy joxe dañuy wax sénégalais yëpp. ku ci bëgg a joxe dossier mu joxe ñu saytu ko naam Pastef wax na ko te commencé na ko def ndax am na ay postes yoo xam ne déjà comme euh, comité des droits de l'homme par exemple commencé nañ ci def bi ñu waree def dañu ne dañuy def appel à te noonu lañ koy defee benn benn waaye ñun suñu programme nit ñi il faut ñuy liir programme yi boo demee ci programme Bassirou Diomaye Faye mesure bu ñu wax ni dañ koy def dañu ne biir nañ ko def ci ñaari at yi bii ci ñetti at yi bii ci juróomi at yi dañ leen ne balaa juróomi at yi di jeex nañu dem liir programme bi mi ngi ci internet bi dañu ne balaa juróomi at yi di jeex dinañu def li ñu war a def ba appel à candidature ci yenn post yi nga xam ne c'est des postes techniques et stratégiques loolu nag léeg day laaj sax nga voté ab loi il faut nga téye assemblée nationale ba pare doog a yóbbu loi ñu voté ko nga jël décret d'application waaye booy doog a jot ci réew lépp xomag gaa yi nga xam ne ñoo def seeni ñaawteef nekk ci post yi dangay toog naan maa ngi xaar ba dé ba jot assemblée ba mën a voté loi yi déet da ngay commencé faxas te jël nag ci nga xam ngeen yàgg ànd ci dëgg ak ci njub nga ne leen kaay leen jàpp ci liggéey bi ñu liggéey loolu ku ci bëgg a vaar Pastef da ngay sonn rek mais nañu dem lire programme bi nee nañu transhumant fii transhumant amu fi ndax fii dafa amul lu fi luñ fiy séddoo wala lu tooy ba nit naan maa ngi transhumé loolu amu fi muy benn ñaareel bi ku yàgg dégg samay discours lan laa yàgg wax lii ñuy xeex nii génne leen samay samay samay élément bi ñu nekk opposition dama ne lii ñuy xeex nii képp koo xam ne yaa ngi woon sax beneen boor bi ndax lu ma leen yàgg wax problème mu système la ñu am système du nit ñi waaye règle yi la programme bi la gis-gis bi la ku nekkoon ci beneen système misaal bi ma daan joxe toujours mooy Omar ibnu Xattaab nekkoon na ab yéefar ci jamonoom sonaloon jullit ñi lool yenent bi daan wax may ma yàlla may ma kenn ci ñaari Omar yi ba keroog bi Omar jóge ñu ne ko ah sa goro ak sa doom de dafa mel ni bokk nañ ci ñu tuub mu ne tey ma teqali seen baat ak seen bopp bi mu demee ba jege foofu dégg ñuy tari alxuraan taaha mu déglu déglu déglu dafa jékki-jékki rek yooxu daanu xam foofu ci la tuubee nekk jullit te même Omar boobu moo nekkoon yéefar sonnal jullit ñi mu tuub daa di accepter les ne règles yi ma ne woon baaxul jël naa règles yu bees yi même Omar bi la du ñaari bokkul nit mun na na nekk boor bële ñëw nekk gën ñun ñu ñun ñun ñu mu fekk fii moo tax xayrukum loolu la ahadis bu wax xayrukum fil jaahiliya def naa noonu la ko waxee moom it mooy gën su ñëwee fekk si leen ki gënoon ci jaahiliya su dee amoon na ku baax nekkoon fële bu amee bu tuubee ñëw mën na gën man mii kon ñun nag dawuñu ci gannaaw kenn man mii demuma seeti kenn ne ko ñëwal amut demaguma seeti kenn ne ko ñëwal parce que man jàpp naa ni la nga jàppoon commencé ci zéro ba yàlla jox la 54 pour cent boo ci wéyee egg vingt pour cent man loolu laa gëm moo tax. demuma seeti kenn ne ko ñëw la waaye ku xool ba xool ba ne mbir mi doy na ma te nga remplir charte yi ma wax mooy amaguñu fu ñu la téye ne def na lii ci ummi ci loo xam ne lu ñu épingle la ci ay rapport ñaareel bi mooy xaabaabaloon cëb ca jamono adversité mooy ñi nga xamoon ni dem nañ ba jàpp ni ñoom ñun ay ennemis lañu ñu ne ñii il faut ñu faagagal leen il faut ñu rey leen ci kàddu gu ñaaw ci jëf ju ñaaw ak ci di ñu pexeel di ñu dóor di ñu tëj ak di ñu rey bu dee loolu amut man jàpp naa ni sénégalais bu gis boppam ci liggéey bi boo ñëwee ne damay jàpp ci liggéey bi man awma ci problème tekkiwul nit nañ la jël teg la ci kaw ñi fi ne waaye duñ la bodditam ne la doo ñëw loolu dafa sama discours la bu yàgg te leer na nañ ñoom nag lii seen problème parce que ki ñëw ne day ñëw jàpp ci liggéey bi bu ñëwul jàpp ci liggéey bi ci Pastef day dellu ci ñoom rek loolu nag mbir mi nit ñi ni ñuy faqee parce que newuñu ci dëgg gis nga ànd ci dëgg bu ngeen demee ba ñàkk sax kenn ku ne day am ngoram ne man ñoo àndoon ba mbir mi jeex damay des moo tax ñun tëjuñu suñu bunt waaye du lu ñu soxla ñun pour am egg fi ñu bëgg a yegg loolu tam leer na léegi nag bu ñu weesoo loolu ñetteelu poñ bi balaa may dugg ci programme man ko doon fàtte mooy ñoom ni ñuy politiquer tey dafa am ñu ma woo ne ma wéy ñoom dañuy dem seeti yenn communauté yi ne leen sonk yéen rek la bañ daan nañ ko def fii ci Touba Mbacké fu ne ñu dugg fa ne waa ji bés bu jëlee réew mi màggal dootu fi am defe naa màggalu ren li état du senegal def bi màggal di am ba léegi état mosu koo def mosul am te noon la amee ci gàmmu gi noonu la amee ci Popenguine noonu la amee ci leneen ak leneen nit ñi ñoo war a bañ ñu leen di nax wala ñu leen di utiliser ci yenn yi. nun nag duñu politiciens yoo xam ne bëgg ay carte dina tax ñu dem di wax nit ñi lu dul yoon coow li ñu bëgg a andi ci li ma wax man ci xale bu jigéen bu musóoru loolu duma ci dellu tarfata ayn suñu responsabilité fii ci réew mi mooy sénégalais bu ne li nga xam ne sa droit la nga mën koo jot dafa am lu ñuy wax droit à l'éducation xale bu bëgg jàngi boo takkee sa croix boo duggee ci école ak bu munti doon su dee école bi bokk na ci école yi nga xam ne ñu ngi ci programme laïque bi parce que dañuy wax franco arabe franco arabe dafa am français am arabe mais ci école laïque bi la bokk dañuy wax privé catholique ci école laïque bi la bokk mathématique lañu fay jàngale ak français ak anglais waaye jàngalewuñu wuñu fa diine ku bëgg a jàng diine da ngay dem ci daara ji wala nga dem ci catéchisme bi ñooñu mun nañ ne ñooñu école privée totale la ñu fay jàngale le culte looloo tax école privée yooyu yëpp ngeen dégg état bi da leen di jox subvention at bu ne dinañu génnee lu ëpp un milliard sept cent jox ko école yooyu muy privé catholique muy privé laïque parce que mission de service public la ñu am moo tax amuñu droit ñu naan xale ñëw na ci école moo xam ku dem ci franco arabe takk croix dafa am droit dugg jàng français bu dee arabe bi intéressé ko bu wàcc jotee mu ñibbi ku def kolam école boo dugg ci Sénégal da nga war a dem jàngi loolu nag du lu ñuy négocier defuñu ko contre une communauté defuñu ko contre une religion mais dañ ko def au nom de la responsabilité de l'État ma leeral ko mu jeex mais mieux encore école yooyu ñu naan école française la waa France ñoo ko moom Notre-Dame di Liban ak xawma lan du ñu nangu xale Sénégal di sénégalaise ki nga xam ne sénégalaise la ne man bopp neen lay doxee droit am la tax taxul keneen gën ko waaye ki ne man damay musóoru bu demee ci école boobu ñu ne ko doo fi jànge na ñëw nañu école France bi nee nañ du ma fi dugg du jàng ñu xool ndax du fa dugg parce que duñ ñu yab nag seen réew duñ ñu yab seen réew dellu si ñëw yab ñu suñu réew loolu duñ ko nangu kon mbokk yi politique mooy nga jege sa réew jege sa askan nekkal ko fa tey ñi ngi ci pôle bi nga xam ne mooy pôle Bawol ak Ñàmbuur mu boole région de jurbel ak région de Louga pôle bi Cheikh Thioro nee na léegi mooy département yu yu gën a tardé wala yu gën a ndóol d'accord ma ak sëñ Cheikh nag ndax dafa wërul Sénégal ni ma ko waree waaye su demoon Medina Yoro Fula wala mu dem Saraya wala mu dem Salemata wala yeneen ak yeneen dina xam ni département bi du ci département yu gën ndóol waaye département la boo xam ne des na gannaaw li fi waroon am amu fi ak ni mu fi waroon amee ameewu ko noonu ba tax déedéet <laughs> maag sëñ Cheikh la loolu moom maag <laughs> ma loolu maag sama sëriñ la taaliba bi gàgganti sëriñam laa rek dama xaw a tëradi waaye boo nattee xam nga waa équipe waa groupe tàng xol il faut ñuy màcc pass yi ndax seen xol yi di sedd tuuti donc pôle bi pôle bi jamono ji tembe boo jëlee ñaari région yi li statistique yi joxe mooy trois millions deux cent mille habitants ñoo fi nekk waaye comme dañoo def document boo xam ne dañu ne gouverner c'est prévoir ñu def projection ci vingt cinq ans moo tax ñu ne deux mille cinquante pôle bi lan lay méngool deux mille cinquante pôle bi dina doon sept million deux cent mille habitants mooy doon pôle daanaka bu gën a peuplé ci Sénégal ndax pôle pôle centre rek moo koy ëpp waaye pôle sant bu leen fàtte ni ñetti région la te pôle bi ñaari région la donc boo ko nattee ci loolu mun naa ne mooy pôle bi ëpp habitant ci Sénégal mooy pôle bi ñu ne léegi boo ko gam-gamlee ak pôle Dakar pole Dakar bi nga xam ne tey million millions d'habitants la moom en 2050 6 millions d'habitants lay doon kon progression bi am fii en terme de démographie amul foofu ñaareel bi ñu ne tey richesse bi nekk ci pôle bi mooy alal gi meññ fii ci pole bi buñ ko séddale waa pôle bi ñaata la ñu ne buñ ko séddale woon kenn ku nekk 400 mille ngay am ñun ñu ne fii ak mille cinquante bëgg nañ ko multiplier par deux et demi ba nga xam ne dina doon minimum un million par habitant ci pool bi ñu ne nag liggéey xaw naa néew ci pôle bi ndax taux d'emploi bi liggéey bi 18 pour cent la boo jëlee téeméer yu ne daanaka fukk ak juróom-ñaar wala fukk ak juróom-ñett ñoo ciy yëngatu ñoo ci am liggéey. loolu néew na lool te du ngeen ma weddi ndax soo waxee dañ la naan fi Jakarta moo fi am walla essayé jaayantu waaye koom-koom gi xaw naa xaw naa néew ak sareet yi kon pôle bi ci jamono jooju boo nattee ci wàllu électrification mooy làmp yi ak leeral gi li am ci pôle bi néew na lool parce que 79 pour cent ñoo am courant boo ko nattee Dakar bi am 98 pour cent virgule 7 kon marge bi rëy na noonu ci ndox mi ne nañ 50 pour cent ci ñi dëkk ci pool bi ñooy am ndox bu jóge ci robinet loolu néew na boo ko nattee Ndakaaru nga xam ne mu ngi à 74 pour cent enfin mënoon naa lim yu bëri waaye boo jëlee ci wàllu santé. li fi nekk ci personnel santé mi ngi représenté huit pour cent ci ñuy faj ci Sénégal nga ga natt koog ndakaaru bi nga xam ne moo am trente six pour cent yi kon pôle bi néewle na ci paj mi ak lépp lu jege paj mi moo tax ñun bi ñu liggéeyee lool bi ñu ko xoolee dañ ne pôle bi am na ay capacité yu am solo waaye lan lañ def ci capacité bu ci njëkk mooy mbay mi ku wax fi wax mbayu gerte mbayu dugub mbayu njebbe parce que fii dafa bokk ci bassin arachidier suuf si doon li ñuy wax le sol joor mu wuteeg suufu Casamance ba nga xam ne c'est du sol argile moo tax tubaab bi defoon ko fu ñuy bayee gerte waaye est-ce que mbaykatu gerte yi ñu ngi gis seen bopp ci bay bi est-ce que ñi gis seen bopp ci am matériel bu doy am jiw bu doy am engrais bu doy waaye bu ñu bayee ba pare ñu jënd ko ci prix bu baax loolu ren lañ ci def ñun te muy rek lancement muy premier année bi gis ngeen li ci ministre de l'agriculture liggéey ba presque ménage bu nekk jot na te teel na ko jot lu jot lu mat sëkk ci gerte ak ci engrais ak yeneen yu demee noonu mbay mi nee nañ leen fan yii dinañu fixer prix gerte gi waaye moo wax leen ni bu dee gerte bi ñu ngi ko doon jëndee juróom at yuy passé ren dinañ ko jëndee fukk wala lu ko ëpp loolu lu ñu décidé la ba pare ci subvention yu ñuy dugal ak yeneen waaye mbay moomu il faut mu ànd ak industrie ndax di bay chinois yi ñëw jënd ko yóbbu pertement la ci réew mi ndax ñoom suñ ko jëlee dañ koy dem transformer ñëwaat jaay ñu ko beaucoup plus moo tax ñu ne politique industrielle bi ñu bëgg def fii mais def ko mais fexe ba yu Sonacos yu bëri à taille moyenne am fii ba lépp lu ñu fi bay ci gerte ñu nal ko fii def ko diwlin lañ ci soxla ñu utiliser ko la ca des ñu génne ko réew mi loolu bokk na ci politique industrielle bi ñu bëgg a def fii dañu ne fii dañu bëgg mu doon pôle industriel premier projet bi nga xam ne moom la ñu lancé ci industrie Sénégal dinañu ñëw fii mois de décembre poser la première pierre mooy li ñu war a monter fii ci ay oto muy camion yi mais muy aussi matériel de défense muy matériel militaire fii lañ ko tànn fii ci département Mbacké ne fii lañ koy teg te mu war a jur minimum cinquante mille emplois kon président Diomaye su leen ne Mbacké yitteem la ngeen war koo gëm léegi docteur Cheikh Tidiane Dieye wax na ci ndox mi mais loolu yàgg nañ ko joytu fii fii ci mandat bi balaa 2029 dinañu andi ndox bu baax ndox bu ñuy naan partout au Sénégal mu ñëw fii ba Touba Mbacké Diourbel Mbacké et cetera ba ñëpp am ndox bu baax yéen xam ngeen ni problème mu Touba non seulement ndox mi ñuy naan baaxul mais réseau bi 40 pour cent du réseau dafa nëb ba nga xam ne ndox mi ciy jaar li ciy li ciy tuuru moo ëpp li ciy egg ci nit ñi loolu yëpp nag programme bi docteur Cheikh Tidiane jël xaalis bu bëri la ndax su ma juumul gën saa gàtt jëlee ndox mi Lac de Guiers andi ko bopp yi dépassé na 600 milliards 600 milliards yoo xam ne ci lañ koy def dégg ngeen nag ay nit naan ci ban condition la docteur Cheikh Tidiane joxe entreprise bi gagné et cetera xam nga loolu ay waxu. loolu yéen ñi dëkk fii am problème ndox te nee naa suñu nguur ñun lu ñuy def rek ci transparence lay doon mais est-ce que d'accord ngeen ñu toog ay ay weeri weer lii ñu def nii études yi rek waroon jël deux ans études yi ci six mois sept mois ñu def ko ba signer contrat bi est-ce que di ngeen d'accord ay nit naan leen transparence ak léegi li ñu toogaat ay deux ans trois ans quatre ans mu leer ni d'ici deux mille trente cinq ndox du ñëw fii ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne ñi ngi wër di essayer yàq xelu nit ñi ay lobbyeur lañu lobby kenn ku ne ci ñoom demoon na ut ay partenaire am nee na ñëw bëgguñu ko imposer bëgg ci am ay commission yoo xam ne ay milliards yu dugg ci poosam la loolu jeex na ci Sénégal ñu ngi gërëm sëñ Muntaxa parce que bañ fa yebalee ndaw ñi man mii dem naa gis ko waxtaan ak moom wax kon li ñu fas yéene def lim ñu wax mooy moom ci boppam ab géntam bu mu géntoon moom la ñu fas yéene réaliser nii daat ci def ay ñaan te dina yegg bu soobee yàlla assainissement bi duma ci dellu si Cheikh Tidiane wax na ko <coughs> waaye wax nañ leen aussi li jëm ci tourisme religieux tourisme religieux fii ci Touba am na benn étude boo xam ne Moubarak Lo def na ko li mu wane mooy màggalu 2023 lu mat 6 million de personnes daje nañ fi waa 6 millions de personnes yooyu dañuy bàyyi rek ñu ñëw def seen màggal dellu wala mun nañu fexe ba màggal gi ànd ak koom-koom ànd na sax ak koom-koom ba noppi waaye nañu fàttaliku même yàlla ci alquran bi muy wax aji màkk dafa ne dem leen ngeen def faratay bu ngeen paree na ngeen def seen commerce ay euh, jaamu yàlla mën na ànd ak koom-koom gu bëri waaye fii Touba ñaata su 6 million de personnes dajee fii ñaata gàtt lañ fi rendi der googu xam ngeen ni day yàqu der giñ fiy def yépp après dañ koy sànni ji moo tax filière po bi ñu wax nga xam ne der gi ak meew gi ak lépp lu jëm ci jur gi ñu fas yéene ko def fële ci daara jolof ba nga xam ne suñu cordonnier yii soo demee ngaay tey romb naa fa cordonnier yi dañu wax ni ñoom pour ñu am der gi dañuy sonn léeg buñ ko amee dañ ko yónni ba itali wala Espagne ñu traité ko mu doog a ñëw loolu léegi mu jeex Sénégal ndax agropole bi ñu bëgg a def foofu lépp luy der dinañ ko traité fii mu ne dellu ci cordonnier yi ci njëg bu yomba yomba yomb ba nga xam ne dàll yi ñu ciy defar ceinture yi ñu ciy defar sag yi ñu ciy defar dina mun a concurrencer lay jóge Chine wala lay jóge France wala lay jóge Allemagne ak ak feneen bëre gi ci pôle bi su ma waxee tourisme religieux mooy am na lu ñu jot a def Touba waaye ñun bëgg nañu def dix fois plus ndax war nañoo am fii ay hôtel yu moderne bi ma demee Kolda dama fa waxtaan ci lu jëm ci euh, Madina Gounass parce que foyer religieux yi bëri na ci Sénégal te bu nekk am am na xew yu mu moom yoo xam ne ay nit dina ñëw mais ñu jàpp ni ñay jóge chaque jour ndakaaru ne maa ngi dem ziare ji sama sëriñ Touba kenn xamul nu mu toll ku fi ñëw wi kenn kër diine kër euh, kër kilifa goo dem di nga gis ay daayira yu ñëw seet si leen waaye léeg-léeg dañuy obligé gaawantu dellu parce que dañuy am problème fu ñu dal boo demee tey Makka wala Madina hôtel yi gën a bakkane ci àdduna fokk nga koy fekk noonu la amee ca Rome loolu lañ ne bëgg nañu am fii jéggal ma nag mais tey tey dafa mel ni sëqët si dafa gën a rakkaaju xam naa ni waa boor bële comme ñoom xar nga fuufa la ñu gëm xam naa ni ñoo yëngal butéel yi <laughs> waaye mënuñu dara ci ñun kon tourisme religieux boobu lañ ci wax mooy du état mooy ñëw di tabax état mun na defar kër sañ Touba ba mu baax waaye état day day encourager waa secteur privé ñoom seen bopp ñu créer leen cadre yi ñu leen war a créer gannaaw borom dëkk bi bu joxee ndigalam ñu ñëw investir fi tabax fi ay bërëb yoo xam ne ku ñëw mën nga ne maa ngi dal foofu bu julli jotee ma dem julli ji ca bërëb bu tedd ba su ma bëggee ziyaara ji ma dem ziyaara ji ñëw toog mu am ay restaurant yu moderne yoo xam ne soxla woo dem taxaw ci kër waaye mun nga dem foofu dem dem jëfandikoo loolu du créer koom-koom ci ci dëkk bi du créer emploi suqali transport bi loolu la ñuy wax tourisme religieux ñoom ñiy wër naan gars yi nee nañ dañuy def ay bërëb yoo xam ne caaxaankat yi fa la ñuy ñëw kenn mësu leen wax loolu bu doon loolu Makka du am turi hôtel Medina du ko am <coughs> kon tourisme religieux bi bokk na ci programme yi gën a am solo waaye mbokk yi pôle bi ñu nekk am na phosphate phosphate baa ngi fii Baba Garage phosphate baa ngi fii phosphate baa ngi fii ci Daaru Musti phosphate baa ngi fii ci dëkk bi waaye bu leen fàttani ni bi dafa dem ba Louga dem ba Lompoul ku wax foofu wax zircon bi nga xam ne ay nit dañ ci am ay milliards yu dul jeex te senegal gus si boppam moo tax ñu ne nag pôle industriel bi nga xam ne phosphate bi ñu fi am du luy génn réew mi de loolu jeex na ci réew mi nañ doon génnee or bi di ko génnee euh, phosphate bi di ko génnee jën gi ak yeneen ak yeneen loolu jeex na ci réew mi la ñuy produire fii la ñu bëgg ñu def ay unité industrielle ñu koy transformer fii ci dëkk bi def ko acide phosphorique def ko engrais parce que ku wax mbay wax engrais lañ ci soxla ñu jël ko la ca des nag ñu doog koo jaay parce que sooy jaay phosphate brut bi bu dee 1000 nga ciy am boo ko jaayee noonu boo ko transformé fi def ko engrais 5000 nga ciy am loolu la ñuy wax valeur ajoutée cuune yi fi nekkoon xaw nañoo rey Sénégal kenn xamul lii lu mu doon Maroc de phosphate moo ko développé Maroc ñun ñu am phosphate ni ñoom waaye teg ci pétrole teg ci gaz ak yeneen ak yeneen te ñoom amuñu loolu mbokk yi Sénégal mun nañ ko développé ci lu gaaw waaye lenn rek la raaj mooy askan wi takk seen ndigg topp ci gannaaw président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am parce que ñi yàq réew mi ba fii ñooy waraat bëgg a nërmel xelu nit ñi naan leen def nañu 6 mois ana résultat bi 6 mois bi résultat am na fii inondation yu am ren niñ ko geeree rek defe naa preuve la ci te programme assainissement bi ñu am docteur Cheikh Tidiane wax na ci fii ci Touba Mbacké la ca njëkk mooy lépp lu war jumaa ji di si quelque temps du ngeen gis ndox bu fa taxawaat bu soobee yàlla ñu doog ci teg yeneen yi bassin bi ñu fi bëgg a def bassin sur 60 hectares nga xam ne ndox mi yëpp dañ koy yóbbu foofu bu nawet bi jeexee ñu mën koo jëfandikoo di def maraîchage au ñuy dem jéggaani soble beek euh, carottes yeeg ñoom seen feneen mun nañ ko def fii aux alentours loolu mu ngi ci programme bi Cheikh Tidiane Dièye wax li daf cee duggul ci détails yi waa ñoom pendant 60 ans fan la ñu nekkoon lan moo tey ñu def li ñuy wax nii kon. pôle industriel bi ñu wax fii pôle agropole bi ñu wax fii ci càmm gi ci fii nag mën nañ fi def sax culture waaye nag amu leen géej ba mun a napp waaye càmm gi mbay mi phosphate bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne buñ ko dajalee fii mën gëm naa ni ci diir bu gàtt gëm naa ni ci diir bu gàtt nañ ko bëggee def feneen ak feneen ci Sénégal parce que développement day maase ku leen gëm gëmloo ni réew gox gi mun na développé geneen gox gi sous-développé da leen nax boo demoon tey États-Unis boo demee Détroit wala nga dem Philadelphie wala nga dem New York foo dem rek ne fii moo gën a développé boo demee France noonu waaye boo ñëwee fii foo dem ne fii moo gën a sous-développé développement day maase moo tax pôles yi ñu def ko huit pôles yoo xam ne benn bu nekk. lañ fa bëgg a def buñ ko defee ña nekk foofu mooy ñe ne Casamance ñe ne Matam ñe ne Ndar ñe ne fii ñe ne Ndakaaru ñoom ñëpp dañuy bokk jógandoo bu ko defee kenn ku ne am sañ-sañu toog fi nga dëkk bañ a dem ñun ñëpp ñu dem tàncaloo fële Dakar ci ay location yoo xam ne chambre salon nga fay am lii mooy gis-gis ci développement est-ce que pare ngeen pour gunge ñu ci liggéey bi pare ngeen pour liggéey ci lii nag buñ ko defee day ànd ak ay infrastructure moo tax corridor bi nga xam ne autorite bi war a jóge maatam ñëw ba taqale ak autoroute Ila Touba bi waaye mun a am ay ramification rans yi ak feneen ak feneen bi nga xam ne mooy secteur de production yi bokk na ci li nga xam ne mooy lënkale pôle nord bi pôle nord est bi ak pôle bii train bi doog a ñëw nag ndax fii ku fi wax wax train nag waaye saboté nañ ko ba lu yàlla xam doy na kon fii de tabax nañ fi université te waa dëkk bee ko tabax laaju ñu kenn dërëmam loolu ñu tabax noonu wóor na ma bu doon état bee ko tabax bu ñu la nee quinze mille bu ñu la nee bu ñu la nee fii quinze milliards lañ ci def bu doon état moo ko tabaxal boppam ñu ne la cent cinquante milliards lañ ca def moo tax royukaay lañu ci dañuy liggéeyee fii nañ ko defee ci masaalikul jinaan nañ ko defee ci jumaa Tiwaawan niñ ko defee feneen ak feneen la war a roy ci diine dafa bëri te suñu mbokk catholique yi noonu lañ koy defee di tabax seeni mbir di def seeni éco di defar ay école defar ay teen di def leneen ak leneen loolu nag mooy li président Bassirou waxoon ci jub ak jubal ak jubbanti jamono jooju lañu toll soxla nañ leen waxuñu leen ngeen ne suñu gannaaw dañoo bëgg ñu nekk ak même alignement beeg yéen ñuy puusandoo peuple bu musa soppi rek dafa fekk mu am une génération de leaders politique boo xam ne bëgg nañu réew mi jub nañu am nañu xam-xam waaye ñu ànd si ak une une population boo xam ne am nañu farlu te réew mi jaral na leen élection bi ñuy dem nag ci yooyu la bokk man awma sikki sàkk ci résultat bi fii awma sikki sàkk ni bu soobee yàlla juróomi député yi fi nekk ak li nga xam ne moole ci liste national bi ñoom Cheikh baara Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen awma sikki sàkk ni dina jàll waaye yéen rek mun ngeen joxaat yeneen ñeenti député wala juróomi député ci liste national bi li koy andi mooy bu njëkk bi mooy ngeen génn massivement massivement bu njëkk bi bu njëkk bi dañoo gis ni taux de participation yi ci élection législative yi dafay faral di gën a néew taux de participation élection présidentielle dama bëgg bu dee 65 pour cent ñoo génnoon pour voter ji cette fois-ci fexe leen ba nu mu tuuti tuuti quatre vingt pour cent génn voté ji quatre vingt pour cent ci liste génn voté waaye ci quatre pour cent yooyu soo leen jëlee ñoom yenn waa Mbàkke